والقلم وما يسطرون dañuy daal di jox rek suñ Mbàkke kon woo kilifa gii di ministre d'État mbay Ndiaye mi nga xam ne moo fi représenté état hmm. mu war a ñëw nag joxe kàddu gi nga xam ne mooy kàddu son excellence président Macky Sall. loolu ndam la ci lislaam lislaam itam ak dolli ko rek la si yëg ndax lislaam moom kuy ab jullit rek njaboote na la kuy ab jullit rek dugal na si biir daayira bi te itam ñoom fooy woote lislaam ah, ñu ngi si wet gi sëñ Xaadim mbooloo mi ginnaaw bu nu sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala noo ngi julli yonent bi di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di wax rek ni le président de République heure bii démb la yeble fii ndax alxuraan tey mu yebal sunu mbokkam taalibe muy ji Mbay Njaay di nit ku yàlla baaxal benn baat rek laay wax ci benn yu sëriñ Xabbaan Mbàkke moom Seydi lu moom sëriñ Tuubaa mi nga xam ni ci kàddoom la sëriñ mun Muntaxa Gerongar a wax ak sëriñ Moodu Maxfuus ñu ngi leen di siyaare ak këri diine yépp alxuraan mii ñuy wax bindaat nag sëriñ mii dafa doon na alxuraan ndax bàyyi daan mi ko jur maam Madou Badiane mi ko meññ maam sëriñ Touba ko woolu ca njaareem ci ndigalul waar mi ko jur mu di ko bindal ab kaamir looloo tax bàyyi daan mi mel ni sëriñ bi mu feeñee ci bayti fekk maam Madou Badiane di bind kaamir ba ca kër sëriñ Touba ca njaareem fekkewul ba ñu koy waxtu aw tur dafa woote ne liggéey bii ma sëñ bi sant ma am gan sama ginnaaw gan gi tedd na waaye du ma ñëw looloo tax naar bu sell bu mënoon alxuraan bu sëñ bi indi woon moom la Mamadou Badiane mi jur bàyyi den mi jur sëriñ na nañ ko delloo turu loolu rek laa ci doon wax di wax nag ni président mu ngi yebal sunu mbokkam taalibe kii murit saadix la di Alaaji Mbay Njaay bismillah monsieur le ministre d'état bismillah salaatu wassalaam ala seydina wa nabiyana mawlana muhammad sallallahu taala alayhi wa salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi yéen may ñu rekk ci turu son excellence le président la république Macky Sall ñu indi leen nuyu taalibe nuyu jullit lu ni nuyoo mbokk mais nuyoo mbokk àndandoo ci li fi suñ borom tabaraka wa taala baaxe doomu aadama jaarale ko ci muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam gën ci mbindeef wax ak moom ci waxam di alquraanu karim danaa ci dellu si ndax teemu yaatal mbindum alquran bu ma waxee ci li ma président wax ba pare taalibe bi dana ci wax xalaatam le président de la République, son Excellence Macky mu ngi nuyu mbooloo mi yëpp nuyu Sénégal yëpp rawatina kii nga xam ne mooy suñu kilifa ñu fekk ko fi muy sëriñ Xabaan Mbakke bu sëriñ Falilu Mbakke bu Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ak rakkam yi fii fekk ak doomam yi ak taalibe yi ñun ñëpp président Macky Sall mu ngi lay nuyu pour nga jotli li xalif général sëñ Muntaxa Mbàkke bu sëñ Basiru Mbàkke bu Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul nga yëgal ko ne taalibeem doomam taalibeem doomam mu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla mu gudd fan lool liggéey bi muy liggéeyal diine islaam ak li muy liggéey ci doomu aadama yàlla gën ko cee jàppale jox ko réussite nuyu nag ki nga xam ne ci ñun la bokk ah sëñ Seck sa liggéey bii nga yëkkati pour jox jëm alxuraanu karim waxu suñ borom tabaaraka wa président Macky Sall nee na na xam ne daanaka moom ngay liggéeyal ci jamono yii ñu nekk yàlla suñ borom tabaaraka wa taala moo joxe moo joxe li ñu tudde nguur quli allahuma malik mulk tuutil mulk man tashaa wante lii liggéey doomu aadama lii tax doomu aadama nit di nit alquraanu karim la alquraanu karim la suratu baqara daf ñu ko wax ci lu leer amul benn sikk-sikk alif lam mim zalika alkitab laa rayba fii hudan lil muttaqin président Macky Sall bi ko yàlla joxe nguur ba léegi mu yore Sénégal gis ngeen lim fi doxal benn ñépp a daan ànd di respecter kër diine yi wante mu ñëw ne kër diine yi dañ leen a war a taxawu ndax ñun ñépp ñoo fay dem te buñ fay dem war nañ faa fekk situation boo xam ne ah ku fa dem da nga respecter diine bi les infrastructures ñaareel bi mu ne daara ji alal bi ñuy dem di jox ci école yi ci école euh, français yi war nañu yëkkati également jàppale daara daara alxuraan yi ak daara yeneen diine yi sax wante surtout daara alxuraanu karim mu teg ci ne ñooñu di jàng daara alxuraanu karim ba egg ci yenn niveau yi war nañ leen mën a ubbil ay bunt ñu mën a dugg université pour yaatal seen xam donc au-delà de la compréhension de la position du chef de l'État par rapport à, à la religion ou aux religions, le président Macky Sall est en train de poser la problématique de la considération d'un État. Ah, maa ngi lu séeréer buy lak moom parfois ngeen jéggal ma rek mais dama bëgg a wax rek ne foofu président Macky Sall fi mu jël diine pour ñu dugal ko ci mbiru njàngum école bi nga xam ne démb ak barki démb dañoo rocci woon loxoy diine ci njàngale mi tey ji président Macky Sall mu ngi ñuy won ne Sénégal réewu diine mënuñ fee génnee loxo état ci doxalinu diine bi ci na mu gën a rafete ndax diine nag ku fi yore réew jàppale diine bi diine bi dana la jàppale ku fi yore am réew jàppale woo diine bi bëgg a def leneen danga xam ne yàlla moom pare na ak alxuraanu karim pare na ak doomu aadama muhammad sallallahu alayhi wa sallam won nañu yoon te yoon woowu yaa ngi ci Seydi Seck yal na la yàlla jàppale dama doon wax rek ne euh, maa ngi indi rek nuyoo le chef de l'État pour tout la communauté islamique mais rawatina ñi organisé maa ngi jégalu ci waxtaan bi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf monsieur le ministre d'État xam naa bala ngaa dem rek dañ fi dañ fi am ñaari diplôme sëñ Mbacke benn bi ñaari diplôme d'honneur yoo xam ne benn bi euh, ministre bi daf ñu koy joxal Adja Binte Thiaw mi nga xam ne mooy invité d'honneur bi mhm. bismillah sëñ Mbacke. jox ko waaw mu nekk kàddu yu am solo hmm? ak itam ki nga xam ne mooy eh, famille Serigne Makhtar si ñoom itam eh, na am ku ñëw yéeg monsieur le ministre joxal ñu ko diplôme bi ci nu mu gën a gaawee rek. ñu jàll si mu yëkkati kàddu yu am solo yoo xam ni mu jubloo leeral lépp mooy eh, yaatal mbindum alxuraan yaatal mbindum alxuraan nag ministère boo ko déggee mooy mbind mi dañoo bëgg mu gën a yaatu mbind mu rafet yaatu ci Sénégal waaye alxuraan moom ku ne xam na ni. Eh, ni war a mel mel na ne waaye ni ñu koy bindee mu gën a yaatu rafet ba daj ci àddina bi loolu moom mooy eh, jublu bi kon ministère d'État Mbaye Ndiaye mooy jox Adja Binde Diaw ñu sëñ Mbacke kon ñu woo ñu woo sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa mi nga xam ne mooy wax ci kàddu xalif général de Mouride mën naa ñëw moom itam jege si bu ko defee ñu njëkkante ak temps bi di jégalu baax nag mbokk yi daanaka àgg nañ fi ñuy jeexale bii lay jox ki eh, jataay bi waaw moom moo koy jox mu nekk kàddu yoo xam ne yu am solo la ministère d'État yàlla na borom bi tabax taala sàmm leen. ñaari ñaari ñaari diplôme yi ñaari diplôme yi d'honneur la. diplôme yoo xamante ne comité bi ñoo ko sargale ki nga xam ne mooy invité d'honneur bi ak ki nga xamante ne nii mooy parrain bi. Mhm. Euh, bu parrain bi la ñu jël. Serigne Makhtar Hadj ñi mhm. ñu ñaan mu jox ko sëñ Ibrahima mu jël ko. Euh, كنت بنعمة ربك بمجنون